al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam lillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi ajmain wa baadu faalamu ayuha al ixwatu al muminun أن من الدروس التي ينبغي استخلاصها من ذكرى الثامن عشر من صفر التي أحييناها يوم الثلاثاء الماضي أهمية الصبر وفضله وأثره الطيب في الإنسان هذا الخلق العظيم الذي ذكره المولى سبحانه في تسعين موضعا من كتابه العزيز آمرا به ومرغبا فيه مبينا عظم أجره الذي وصفه بقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وهو خير عطاء يتلقاه العبد كما جاء في الحديث ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر كما أن البلاء أيها الإخوة المؤمنون علامة على أن الله تعالى أراد بمن أصيب به من أهل الإيمان خيرا وفي الحديث إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا أي بما يصيبه من البلاء في الدنيا بما يكون به تكفير سيئاته وعلو درجاته هذا أيها الإخوة ما فهمه مولانا العبد الخليم رضي الله عنه من محنته العظيمة فسببت له منحا جليلة جعلته محل, محل شكره تعالى بما قابلها من جميل الصبر حيث قال شكر الإله حان في ترابي بعد جميل الصبر في اغترابي أيها الإخوة اقتدوا بالعبد الخديم وتفاعلوا إيجابيا مع نداء ربكم القائل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ñu ngi sant borom bu tedd bi subhanahu wa taala di julli ci yonentam Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi di wax ne fukki fan ak juróom-ñett yi ñu génne ci weeru safar doon ci fàttaliku ndigalul sëriñ mag bi di ko dundal bis la boo xam ne ay bind yu baree bari mën nañ ko caa jànge waaye bokk na ci ëpp solo ñu war ko caa jànge am solo bu muñ am solo am solo bu muñ am solo ak ngëneel yi bari di nekk ak jeexit yu am njariñ di ci mën a bàyyi ko muñ mbokk yi di jikko ju màgg joo xam ne yàlla tudd na ko lu juróom-ñeent fukki yoon ci alxuraan di digal nit ñi ngir ñuy muñ di leen ko xemmemloo waaye di leen leeral màggaayu tuyaaba ñu fay juddoo borom bi wax na subhaana taala ne tuyaabay ak muñkat yàlla bu koy sotti amul limit dañ koy sotti ci lu ñu ko xisaab muñ mbokk yi mooy may di gën ci lu ñu may nit ku yàlla may ak mën a muñ may nañ la may gën yonent islaam moo ko wax ne joxuñ kenn ak may bu gën wala mu gën a yàlla mën a muñ bokk yi nattu it ñu xam ne nattu màndargam ku yàlla tànn la ku yàlla teg na ku nekk mu tànn nga bu fekkee nekk jullit la Yonent bi bu yàlla na may ci ab jaam aw yiw teg fii ay nattu ci àdduna muy ay balaa yoo xam ne benn muy ku doon dafi bàkkaar balaa yi di far bàkkaar buy faatu fekk mu set ci bàkkaar wala muy koo xam ne dafa am daraja jëm yaayoo suñu borom teg ko nattu ngir bëgg daraja yooyu mu mën caa kon nattu saa bu dikkee dee la moo tax jaam bi daa war a xënte wut ko loolu yi nag la sëriñ bi radiyallahu anhu teeloon a xam moom ba di ko yàlla tegee nattu bi mu tegu ko muñ ko muñ ko rafet kenn mos koo dégg mu jàmbat kenn mos koo dégg mu sàlli bokk na ci ay mu ngi gisee waxoon na ne seen waa ji ba ko topp mbooram fu mu jaaroon fu ne ma ne safaa jaaroon gëstu borom mësta yox yoonu ci la nekkoon kon muñ xam ne yàlla wàcc ko nattu te nattu bu yàlla wàcc bu neew yu lay jur kon moo ko jural xéwal yi bari yi nga xam ne tax na mu doon léppam di sant yàlla ginnaaw bu mu ko muñee muñ bu rafet ba tax mu wax ne sant yàlla war na ma ci sama suuf ginnaaw bu mu muñee muñ bu rafet ci tumuraanke ga ma nekkoon bokk yi nañu roy sëriñ bi rek la am ci jëfandikoo ndigal yàlla santaane woon ci digle ñu mën a muñ borom bi nee na yéen ñi gëm yàlla na ngeen sax ci di muñ natt yi bari na yaatu na tasaaroo na waaye jaam bi li ko war mooy ci kanam bépp nattu muñ muy nattu yaram muy nattum njaboot muy nattum alal bu mën a doon na ko muñ loolu lépp natt nañ ko sëriñ bi te kenn mosu dégg mu jàmbat ku du yàlla borom subhanahu wa taala loolu nag roy dañ ko ca war a roy ndax loolu lañ fi indee mu ne ci son kanam ngir ñuy roy ci moom ay taxawaayam borom mi nee na muñ leen bu ngeen beroo muñ leen bu ngeen jàmmaarloog seen i noonu muñ leen fi ngeen mën nekk ci àdduna te ànd ko bàyyi xel yàlla ci ay ndigalam ak tere an taqwa bu leen kenn gis ci tere yàlla waaye bu leen wuti ndigal yàlla bu ngeen rafet da ngeen amuk taxe fii ci àdduna ak wàllaaxira kon loolu mbokk yi bokk na ci ñu war a jànge ci tutub sëriñ bi nga xam ne nii muñ gu rafet bokk na ci eh, moo ko may ndam lu wéy lim war nañ cee jàng mbokk yi ne ak jullit day jéggale ànd ak natt yu metti yëpp noonu ñu def suñu borom may ko ndam ci seen kaw te bu ñëwee daa wax ne jéggal naa ñëpp naa leen ngir yàlla kon mbokk yi ab jullit nit ku mat bokk na ci day mën a jéggale ku la tooñ nga fayu loo mën a di def ko ko loolu du jikkoy sang ab sang day mën a bale di jégg dañ lay tooñ ngay bale ci la nit di yéege am ay maxamante ci kanam suñu borom ku kawee ay moroom rek dañ koy tooñ mu leen di baal ñu di ko daf lu ko naqari mu di ko muñ kon muñ ak man a jéggale bokk na ci li may sëriñ bi ndam doy li mu am kon nañ ci roy te muñ googu ak mën a jéggale googu nag da cee roy yoon sangam bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam sunna si yonente bi alayhi salaam mën a jéggale taarix nekk lañu ba mu demee Taif lu nañu wan ko fa boole ko seen i gone ak seen i waram ñu di ko sànni xeer ba gaañ ko jibril wàccee bu di ko wax ne ko bu bu neex bu la neexee ñu mu mu tëkkale euh, fenkale ñaari ñaari doj ñu ñu faatu lu mu waxoon allahumma xaw xawmi fa innahum la yaalamuun yàlla na nga dindi sama dañoo xamul rek jikko ju kawe jooju la sëriñ Tuubaa doon na képp ay islam kon ñu nit dañ ko war a roy ci jikko di baale ñu ñuy tooñ ñu baale waaye sax ci di fayu dañ daan wax ne kuy tooñ du mucc waaye kuy baale kuy kuy fayu ci ñoom kon nañu bàyyi xel ne loolu jikko di kawe la fatxu Makka it ni bi islam wane na ko ba ñëpp teewee ñëpp teew te lu ñu teg ko génne ko nangu alalam euh, dox diggante jullit ak seen i njaboot ba yàlla xëy not notal ko ci seen kaw lépp ne ci loxoom ku ne jàppoon na lay def day ñu def ba ñuy dëkk siré téere siré ñu nekk li ne daa waxoon ne idhabu fa antum tulaqaa lu mën a xew maanaam moom wax ju sax la mooy dalee na booyal topp ca kenn dara loolu mooy jikkoy sang mbokk ñuy tooñ lay bàlle Sëriñ Tuubaa nag doon na ci yoon ko islam na ko ba waral xew-xew bi ñuy gis muy ndam loo xam ne ndamu lislaam la li ci daje ci ay jullit li ci feeñ ci aw yiw loolu ndamul muñ muñ bu rafet ak jéggale ku la tooñ moo ko may kon nag suñu warteef mooy nañ ci roy te xam ne mbokk yi borom bi waxoon na ne bu ngeen jéggalee te baale te suturaal yàlla dana leen yërëm jéggal leen suturaal leen nit bu la tooñee nga jéggal ko tooñ nga bañ a fayu loolu mooy afu waaye safu nag mooy nga bañ koo yedd bañ koo wax dara mel ni def dara di gën a kawe nag mooy nga suturaal ko doo ko nekk li kenn loolu la ñu borom bi sant subhanahu wa taala loolu la sëriñ bi jëfandikoo ci nattoom bii ba yàlla dafa ko ci ndam loolu kon bind bi ñu ci war a gën a jàngee kenn ku ne dem rek di yéemu sëriñ bi ak ndamam waaye am nga war teefu jéem a roy fa sëriñ ci taxawaay yi taxawoon ngir yow itam nga mën a nekk ci kaw say noonu yàlla na yàlla boole dimbali alhamdulilahi rabbil alamina wasalaatu wasalaamu ala mawlana muhammadin wa alihi ajmain wa baadu fa inna mimma yanbaghi al-i'tibaru bihi aydan fi hadha al-hadath al-azim afwa ash-shaykh radiyallahu anhu an a'da'ihi ba'da an nasarahu llahu alayhim fa qala afawtu an al-a'da'i turan li wa man nafa'ahum li ghayri sarmadan lastu adfa'u وقد أحيا بذلك سنة نبوية عظيمة سجلها التاريخ بعد أن رمى به أهل الطائف بعد أن رماه أهل الطائف بالحجارة فقال فقال ربي فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وأكده أيضا مع أهل مكة عند الفتح بما معناه اذهبوا فأنتم طلقاء أيها الإخوة تذكروا معي قوله سبحانه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واطردنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار الله وردنا كل ذي صعب وذي حرم ويسرا كل ذي تعصي الله طول لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم